waaw euh, coow lu bëri en politique lu yoon la parce que ku xam politique ci coow la juddu te itam bu ñuy dëgmale ay échéances locales yi di ñëw nii mu nekk xëccoo mu nekk élection déterminante élection gox-goxaat foo ko xëccoo am foo ku nekk jéema a fëgg sa dënd ne man la donte nag ñoom ki nekk ci ñoom. dégguñu la officiellement nga déposé sa candidature mais xam nañu lu bëgg la ñu koy liggéey ci suuf waaye li am ba am ak li ñuy naqarlu mooy parfois au niveau communal da ngay gis ay ñoo xam ni que seen intérêt crypto personnel moo lañ ñor ñu woote ay genre assemblée générale ay réunion restreinte pour di porter candidature diw te gëmuñu si dara parce que ñooñu tey ñoo ñoo fi xëyoon bés tey jii duñu ñu gëmloo ni que le ministre Amadou Ba c'est l'homme à abattre tey jii ñoom ñoo ñëwaat tey jii pour nañu noo dañ ko war a porter candidature au nom de quoi

liggéey ak mom xamal ko rôle ak place bi jeunesse bi am ci mairie bi parce que nak jeunesse bi du nek spectatrice jeunesse bi du nangoti nek également ben force d'appui bo boo xam ne que dañ ciy sukkandiku pour atteindre ses objectifs la jeunesse dafa nar nek acteur ak auteur ci li gestion municipale au parcelle. jeunesse bi dañu war taxawal xéxal également wu àq ak yelleefu jeunes au niveau local jox leen sen cër ndax tam bu dara dem ba élection ñom lañu yaakar pour gagner